qui leur permet de prendre la deuxième place du classement voilà ñu ngi noonu di victoire bu am solo Pape Siré Dia mu ngi noonu di wax ak ay joueuram voilà victoire très important